yëmbal asalaamaaleykum femme département de Koungheul di wax ne képp ku doon laajte Faly Ngoye ngi ngi tey nag président Abdoulaye Sylla honorable député coalition And Beesal Sénégal moo nekk ci bopp bi dugal tey président bi nga xam ne moom trangeen yàgg ko gëm tey ñëw na fii nga xam ne mooy département Koungheul créateur emploi bi mu ngi nii dama ki ko man ak ki koy du benn département bi yàgg nañ koo dénk ay nit mais mosu ñu fee jéem dara suñu mag ak suñu mag ak suñu responsable moo taxaw ci département bi fas yéene waxat waxtaan ak jigéen ñi ak ndaw ñi ak ñi nga xam ne mooy notable yi nekk ci biir département bi te jàpp naa ne suñu dernier espoir mooy président Abdoulaye Sylla département de Koungheul jeunesse bi fiy di def politique suñu dernier espoir mooy président Abdoulaye Sylla mi góor ak kon lima may dëbbante président Abdoulaye Sylla coalition ànd beesal Sénégal ñu ngi lay ñaan ba keroog boo demee assemblée nationale ak ñi nga xamante ñoom nga àndal nan ñu taxaw ci li nga xamante ni mooy institution yu am doole yu fort yu mucc ayib nga xam ne kenn du ko jalgati. ku nekk xam na ne élection yi métti na te lépp dañ ko accéléré processus électoral bi lépp jafe-jafe la te nag vraiment ñu ngi sant wax dëgg yàlla suñu ñaari investiture yi nga xamante ni ñoom lañ seqal liggéey bi di El Hadj ak Ndiémé Ndaw ak ñi nga xam ne mooy Mayrem Gadiaga ak ki nga xam ne mooy honorable Dame Diop ñu ngi koy ziar borom gent paate merci beaucoup ñu ngi jox suñu mag. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum mbokki Koungheul dégguma leen de dama ne asalaamaaleykum waa Koungheul dégguma leen asalaamaaleykum mbokki Koungheul ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turoom ak santam di yu góor di nuyu jigéen di yu mag di nuyu ndaw di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu différence communes yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Koungheul yëpp di jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ne tey ñoom lañ ñooñu dalal fii tey muy maire Adjaratou Ndiémé Ndaw di honorable député wax sunu président di Abdoulaye Sylla ñu ngi lay dalal fii ci Koungheul commune di am mbégte nag di am kontante ci dalal la ndax wax dëgg yàlla am nañ ci yow cofeel lool te Koungheul yàgg nañoo bëgg nga ñëw Koungheul bon yéen waa Koungheul ñu ngi leen di wax président Abdoulaye Sylla ñu ne ko moom ba pale waxuñu képp ku ànd ci ñi nag Abdoulaye Sylla ba pale na nga yëkkati sa loxo yooxu ko waaw kay bu loolu weesoo nag président ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi am mbégte lool ñu ngi am kontante lool ci dalal la fii ci Koungheul commune bu loolu weesoo ñi lay wax rek alhamdulilah bambuk mu ngi nii waaye tàgg mu ngi nii nga fekk fi nag ay ndaw yoo xam ne ndaw lu nekk am na tey ci foo bàyyee ko ñëw ci coalition Beesal Sénégal ñii nekk mboolem chef de parti yi nga xam ne ñu ngi coalisé ci And Beesal Sénégal ak mouvement yëpp di nuyu sa coordinateur ki nga xam ne tey muy Serigne Manirou si mi nga xam ne moom nga àndal ñëw fi di nuyu sa staff yëpp bàyyiwuñu kenn suñu limee dañuy juum mbaa matal di wax ne nag président ñëw nga ci département boo xam ne département la boo xam ne yàgg nañ fi topp nit nag waaye département la boo xam ne département bu bari jafe-jafe la ñu am yaakaar ne nag suñu la gunge ñu am yaakaar ne suñu la jàppale ba nga am majorité ensemble ñu nag yow la dañ lay jàppale ba nga nekk président de la république te loolu lu war a mën président nag département bi am na jafe-jafe lool ci courant ci ndox ci yoon ci sante ci mbay mi ci càmm gi ci commerce bi ndax ñun loolu rek la ñu am fii ci département Koungheul ngay ñëw nga fekk njàng mi su am sooxe sooxe fii ci département Koungheul ngay ñëw fekk benn école ñetti kalaas nga fekk benn musa di ko jàngale fii ci département Koungheul ngay ñëw fekk benn école table ba ñetti école ñetti élèves toog ci fii ci département Koungheul ngay ñëw fekk mbay mi am na cooxe-cooxe sàmm gi am na jafe-jafe te loolu bëgg nañ président suñ la jàppalee nga jàppale ñu fii ci département Koungheul ngay ñëw jigéen ñi sonn fi amuñu ay financement ndaw yi amuñu xëy ndaw yi amuñu liggéey ñi la wër ni yëpp ay ndaw lañ yoo xam ne moins de 35 ans lañu amul kenn ci koo xam ne appal na ñeen fukki at yooyu ndaw nag bu ñu ñëwee daw wër la yaakaar la te yaakaar nañ ëllëg suñu la gungee li ngay def ci réew mi ci lu baax département Koungheul war nañ ci gis seen bopp président duñu daaneel mukk ndax lii dañ ko yàgg bëgg depuis ay fan ñu ngi lay seetaan di la siifuur ngay def tournée bon tey soo ñëwee fii ci département Koungheul wax dëgg yàlla dang ñuy may ñu jël suñuy doléance wax ko ndax wax dëgg yàlla xam na ne soo bay am pour ëllëg ñu la nga nekk am majorité assemblée waaye dañoo am yéene ëllëg gunge la nga nekk président de la république tey bu sañoon dañ fi fanaan ak yow te buñ fi fanaanoon ak yow duñu doylu nga ñëw ci département boo xam ne xale yi ñu ngi souffrir ci yàgg topp ay mag ci yàgg gunge ay politiciens te gisuñ ci suñ bopp nga ñëw ci département boo xam ne jigéen ñi am nañ problème ñu ngi nii taxaw man nañ ma seede ñoom ñëpp bu nooree dañuy def xolli xolli sol président loolu war na fi baye ko war nañ fi kere ay usine ndaw yi am luñ liggéey li nga xam ne moom la ñuy bay war nañu di ko des fii di ko transformer di ko jariñoo mbay mi am na sooxe sooxe matériel bi ni muy ñëwee ci baykat yi baykat yi duñ ko ko jotee matériel agricole bi doxul tracteur waaye ci borom doole rek lay yem ñun néew gi doole yi mënuñu si jot président ñu bëgg suñu la di ay jafe-jafe mu bàyyee koo fi wax dëgg yàlla duñu daaneel suñu kàddu mukk nag te duñu sant population départementale bu Koungheul ndax gannaaw yàlla li yëpp yu am ñoom ñoo waral di jiital ci cant gi président Serigne Ndaw mi nga suñu plénipotentiaire ma bëgg ngeen ko bu baax président lii di parti ABS lii di parti coalition ànd beesal Sénégal ñëw fii ci département Koungheul ba ñu xam ko grâce à Serigne Ndaw képp na def lu baax ñu wax ko duma daaneel mukk te duma nayu suñu honorable mi suñu yaay Ajaratu Njéeme Ndaw di ci teg honorable Dame Diop suñu suma suppléante di ci teg Mayram Gadiaga waaye di ci teg coordinateur communal yëpp bàyyiwuñu kenn suñu limee dañuy juum président duñu daaneel te ñu sant ki nga xam ne tey mooy suñu sak mooy suñu tiitar di ab Abdou Mboup mi nga xam ne tey moo nekk ci xolu Koungheul commune yàgg fi taxaw nag yàgg fi liggéey nekk koo xam ne mu ngi ci financement yi mu ngi jàppale jigéen ñi bon tey loolu mooy li nga xam ne moo doon suñuy kaddu ñu ngi sant ñu ngi sant ñu ngi gërëm président fii nga ñëw dama bëgg doléance yi nga xam ne ñu ngi la koy wax nga bàyyi ci xel dañoo sonn de dañoo am jafe-jafe de tey Gént Pathé ki nga xam ne sama suppléante fa la nekk diggante Gént Pathé ak Koungheul mu ngi ci onze cent gente kilomètres trois heures ngay déparé Gént pour nga ñëw Koungheul six heures six heures du matin xam nga loolu métti na trois heures ba léegi jigéen ñaa ngi rootaan fii ba léegi jigéen ñaa ngi dëbb doléance yi bëri na suñ ko doon wax fii ba suba duñ fi bàyyeekoo waaye nag may sant sama commune di Koungheul di commune Lour Escale maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jaajëfal Aji Bago bu baax di gërëm département Koungheul bi yëpp di ci jiital sama ministre bu ñaawul bee di Abdou Mboub borom kaar naataange oh nuyu la ma sama Abdou Mboub moomu borom kaar naataange président Abdou Mboub Ndiémé Ndaw moo lay nuyu honorable Ndiémé Ndaw moo lay nuyu si la ma di la gërëm di la sant di la présenté département Koungheul jigéenu département Koungheul yëpp génn nañu macha allah sonn neen tàyyi neen waaye yaa ko jar yow la jarul rek amul li ñu def def nañ ko ñu war a génn génn neen gërëm neen leen sant nañ leen waaye gis nga yi muy député bi wax muy honorable doléance ci jaaraat ndax dugg sa nopp dugg sa nopp staff ñoom ñoom nañ ko jël nag def ko seeni nopp te xam ne doléance yooyu moo nekk biir Koungheul jàppale leen Koungheul ay wag yi ñoo bàyyi parti ñëw ci parti bi ay wag yi jëmm ñoo jógee fa neex fañ bëggoon fañ nekkoon ñëw fii kon damaa bëgg ngeen jàppale ñu ngi gërëm ñu sant di sama naataango yi nga xam ne ay honorable leen sama bëtu ñaawul ji nga xam ne moom daf maa topp papa yi muy sama xarit ak daam mi maa ngi leen di ñoom Diop di sant te di leen gërëm bàyyiwuma kenn adduna boobu nag lépp moom la dama bëgg ngeen xam ne adduna boobu mais lépp moom la kan la gërëm sant naa ko staff yi dégg ngeen bu baax li li ciy wax doo ci jaaxal damay gërëm di sant gërëm na képp ko ànd ak man ak képp ko ma topp rek gërëm naa la sant naa la jërëjëf am tey am nañ mbégte lool ñëw fii ci Koungheul ci Bambouk ci département de Koungheul ànd fii ak kilifa gu mag yi nga doon dégg yéen ñëpp muy le président Abdoulaye Sylla. la ilaha illallah naan baa ngoogu waa Koungheul. seen doom Abdou Mboup ànd ak seen doom Serigne Ndaw Abdou Mboup yaay daanaan ak ñi nga xamante ne tey ñoom lañ wóolu ak ajartu njéeme ndaw bu gaar na tànge ngeen xam ko ci ay financement yum dugal fii ci gox bi ñoo ñëw tey fekk si leen waaye dama bëgg ngeen xam xam ngeen ma xam ngeen ab ministre Abdou Mboup kii mooy la daanaka soxlawul politique dafa liggéey comme nu mu koy ci ñaari junne ba yegg ci nekk ku gis tey ni ñu àndee ak ni muy ñëwee duggee ci réew mi nga xam ne kii soxlawul xaalisu Sénégal kii la doon senegal xaar pour naataange boobu ñu doon wax di ko wax l'an 2000 kii la doon Sénégal di xaar ngeen xam ne ànd beesal Sénégal président lii ñu jàkkaarloo mooy juma grande mosquée grande mosquée de Koungheul xam nañ la ci defar juma président xam nañ la ci defar daara yi président nañ la ci taxawu diine ji président ñaan suñu grande mosquée bii ah. nga dugal ci sa loxo dama bëgg ngeen tàccu loolu yéen ñëpp ñu bokk ñaan ngeen xam suñu waa ji kan président Abdoulaye Sylla moo yor alalam di ko bokk ak waa réew mi bëgg naa ngeen ngeen ibi bu baax baax baax seen xel nga xam ne novembre 2024 tànn bu baax bi mooy ànd beesal Sénégal bu président Abdoulaye Sylla ñuy gërëm baax a baax waa Koungheul taxawu ku gis daje bi xam ne xam ngeen tertu muy président Abdoulaye Sylla ànd ay doomu Koungheul yu mag di ñëw ci élection législative yi waaye ngeen ko xel kii mooy projet de la République du Sénégal seytaani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum waa Koungheul seen doom Abdoulaye moo jaaroon fii tey après bi ma defee tournée jóge Ziguinchor jaar Kolda jaar Tamba tey fii ci Koungheul ñëw seet sunu investir seet si population bi ma di xamal li may njëkk a def mooy massawu coono massawu leen seen doom yi nga xamante ne dañu gaañu fan yii ci ay blessure te ay samba booy ñëw ci dëkk bi dal seen kaw may massawu famille yi bu baax a baax a baax leneen li si topp may def un remerciement à tous les investis investis investis, si investir Kungel. fii ci Koungheul ku ci euh, Mariam Gay, Mariam Mariam Dame Job. remercier aussi sur le ministre conseiller Abdou Mboup xam ne daf may jàppale ci biir coalition bi bi ñuy dem ba léegi man ak moom ñooy ànd fépp fu dem ci tournée nationale dafay ànd ak man maa ngi aussi remercier le coordonnateur bi nga xamante ne sama rak sama xarit Serigne Ndao nit ku gore nit ku ñàkk iñaan ndax bi ñuy def liste yi moom dafa fàtte boppam xool intérêt Koungheul xool ñi nga xamante ne Koungheul ils sont représentatifs mu ne nañ leen jël dugal leen ci liste yi loolu moo waral investi yi ñuy ñaan ngeen jàppale leen au soir du 17 novembre 2024 ñu fal seen doom yi député à l'Assemblée nationale man nag bi may dox ba léegi fu nekk war naa fa si Sénégal noor bi moo ma dese ak tuuti centre bi mais dama demoon Casamance parce que dañ ne am dañu wax ne am na ko ko moom ma demoon doon xool ba xam dëgg la wala du dëgg waane Casamance bañ fa demee man dama jommi dama yaakaaroon ne Casamance ah xanaa man maa ko moom ñëpp a génn ñëpp a génn ma dellu nag dem ci dëkk premier ministre bi def fa meeting bu rëy boo xam ne ça restera dans l'histoire du Sénégal. leneen li nga xamante ne moom laa bëgg a wax fii si Koungheul jàmbat yi bari na. mais ma xamal leen ne jàmbat yooyu moo nekk fépp ci Sénégal fépp foo dem liggéey amul xale yaa ngi toog borom jakarta yaa yi nga jakarta yi nga xam ne dañoo amoon sax métier di dawal seen jakarta gisatuñ client réew mi dafa dëgër réew mi xaalis bi tourné tul chômage bi bëri na moo tax nag ngeen war a tànn seen doom bi nga xamante ne moom liggéey la xam liggéey lay def créer emploi lay def xaarul dara ci nguur ñaqam lay jël jëriñ ci boppam jëriñ ci askanam jëriñ ci ay waajuram loolu la ñu bëgg a def fii ci Koungheul ñu leen di wax ne li ñu war lu ñuy gën a def priorité mooy agriculture bi ndax wax naa ko waxati ko réew dafa war a béy di dundee fii ñu jëm nii ci kanam réew mu mënut a dundal boppam dana am problème ndax li li am ci climat yi moo tax ñëpp ñu ngi def ay ay ay ay tracé ay chemin di ay programme pour am autosuffisance alimentaire fii nag souveraineté alimentaire lañ bëgg ci Sénégal te loolu Koungheul la war a déparé ak région bi ñu leen di wax ne bés bu ñu amee majorité sunu priorité mooy fexe ba engrais bu bon biñ leen jox ren dootul am a amati mbay mi danañ ci taxaw jox leen engrais bu baax ngeen ji am seen gerte bu buñ baree nag ñu changé dañu senegal bu bees dama bëgg lii am ci yeneen réew yi am Chine yéen producteurs yi ngeen am seen mini industrie di defar seen diwlin seen kër comme ñëpp di ko jaay di am xaalis loolu mën na nekk de transformation yu ndaw la ñuy indi moo am ngeen di transformer seen gerte au lieu ngeen koy jaayee 400 ngeen di jaay litre bi ay 100 jëm ba 800 comme ñëpp loolu la ñuy def aussi élevage bi ñu dimbale si jàppale leen ci ay financement utal leen aussi ay unité de transformation ndax foofu la Sénégal tollu léegi weesu napp wala sam, jël ko jox ko nit mu jëriñoo ko am ci bénéfice boo xam ne yow mi sonn guddeeg bëccëg doo ko ci am loolu dafiy jeex ñiy béy ñiy sam, ñiy nap dañ leen di jox priorité ñuy jël seen i produit transformer ko seen bopp jaayal ko seen bopp am seen koom jëriñ seen bopp jëriñ seen askan bu weesoo loolu ñu ñëw nag ci njàmbatu dëkk bi ndax dëkk bi ko ko gis rek xam ne dëkk bi tumaranke na man dama foog ne ngel dañ leen a fàtte waane nag da ngeen titre foncier fii ma ñëw dëkk fii defar ngel defar ko ba mel ne Dubaï loolu laa leen di ñaan au soir du 17 novembre ngeen jox ñu majorité ñu jël dëkk bi transformé ko defar ko ba mu mucc ayib ndax fii ay nit ñoo fi dëkk ay nit ñoo xam ne dañoo tekki ci réew mi am fi wàll am fi baat donc lépp lu nekk ci dëkk bi dañ cee war a am tali yu baax yi am ndakaaru dafay war a am assainissement bu baax bi am ndakaaru dafay war a am lamp yu leer yi am ndakaaru dafay war a am xëy mi am ndakaaru dafay war a am kon Koungheul bu ma ko jëlee danaa ko defar dootu leen jooyee ci dara loolu la ñu bëgg ñu waxati ci nag li nga xamante ne moom mooy ndaj dëpp bi moy l'emploi des jeunes l'emploi des jeunes nak man li ma leen di wax dafa yomb man dama bëgg ngeen jël exemple ci man sama rakk yi sama moroom yi jël leen exemple ci man man musuma liggéeyal état jël leen état bu fekkente ne bëgg ngeen a tekki jël leen état ngeen sànni ko fële gëm seen bopp xam ne mën ngeen ko te bu soobee yàlla day am mën naa nekk laa wax mën naa nekk boo leen ko gëmee rek mu nekk di 000 francs laa démarré ba egg si fi ma egg tey kon yéen ñi mën ngeen ko amul kenn ku mu jomb jëm leen ne yéen buñ leen jàppalee parce que loolu la ñuy def léegi amuñu woon temps indaa la ñu ñuy formel mais fépp fu ñu dem dañuy yóbbaale suñu bàjjan yi ay formatrice pour ñu former suñu jigéen yi nan lañuy transformer les produits locaux ba mën ko jaay am ci dara nga xam ne seen auto emplois la ñuy def seen industrie bopp la ñuy def dama bëgg ku nekk mënal boppam jëfal boppam te loolu lu ñu mën a def la bu soobee yàlla danañ indi fii suñu jigéen yi jël mbootaay yi former leen ñu trans ñu mën a transformer gerte gi ak céréales yi ba nga xamante ne buñ paree danañ ko jaay am ci bénéfice teral ci seen waajur li ci des sax ñu denc ko ci banque yi ci loolu lañ jëm ak yéen leneen li si nga xam ne moom lay mujjee muy financement yi financement yi bu ñu leen formé ba pare ba ngeen am seeni diplôme dañ leen di jël yóbbu leen ci mutuelle yi en attendant parce que bu ñu yàlla joxee majorité sax danañ jël taux bi nga xamante ne moom lañ doon lebalee mu 15 pour cent 10 pour cent 12 pour cent pour man loolu riba la dafa war a wàcc dafañ ko war a wàññi taux 9 pour cent gën gaa gën gaa bëri ay 7 pour cent francs te buñ demee ba ci kanam ba xaalis gën a am ñu développé dëkk bi danañ dem ba à un taux zéro comme ni amee ci réew yi nga xam ne boo ñu la lebelee cent francs cent francs ngay fay ci loolu laa leen di woo mais loolu nag pour mu mën nekk mbokk yi le 17 novembre yéen yéen a am solution bi yéen yéenay dem ci mbañ gàcce yi jël carte bi votel ñu ko ñu gagné soppi réew bi jërë ngeen